asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci MK TV di site bi bàyyi ko fii ci biir jumaay Touba ji ñoo ngi dellu si leen nuyu dellu siwaat ak yéen ci bind yi nga xam ne doon nañ ko ànd ak yéen muy mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ay bind yoo xam ne dañ ciy jàngale jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa ci teqantal ñu tàmbali woon ko diir bu yàgg ba nekkoon ci bindu fukkeel bi ak juróom tey ñu war a ñëw ci bindu fukkeel bi ak juróom benn bind biñ tolloon nag ñu ngi woon ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon nañ waajtaay wa waxoon nañ it ñaari gàddaay yi nga xam ne ñoo jiitu gàddaayu madinatu munawwara ga muy gàddaay gém gàddaayoon dem ca xabasa ñu naan ko Éthiopie gu njëkk ga ak gu ñaareel ga ak la ca xewoon lépp bu ngeen delloo ci bind bu mujj ba def bind fukkeel ba ak juróom ñoo ngi tolloon ci waajtaay wi ak dëppoo gi ak réglage yu mujj yi nga xam ne daal ku tedd ki yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko ba nga xam ne fi mu rek lay xaar daal di dem ca dëkk boobu ñuy woowee Yasrib ca jamono jooju. waxoon nañ ne am na réunion bu mag boo xam ne waa Màkka defoon nañ ko réunion boo xam ne ibliis àlla ayn teewoon na ko. muy seytaan arajim tee woon na réunion boobu yu waxoon ne jëloon nañ fa ay xalaat ak luñ dogu ak luñ dëppoo yu rëy waaye borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne laa yaxfa alayhi sayun fil ardi wala fi sama ñëw na waxaat yonent bi mbooleem loo xam ne waxoon nañ ko ca réunion boobu boo delloo ci suratul anfaal borom bi bi mu naan wa is yamkuru bika lasina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin muy borom bi nee na ko ñoom day ña ngay fexe ña ngay waxtaan ci lu jëm ci yow ñu génn la wala ñu tëj la walla ñu rey la yii yëpp jib na ca réunion ba waaye nag ña ngay fexe waaye na nga dalal sam xel ci xam ne yàlla ay pexe mooy féete kaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom wax na ko mbokk yi bi nga xamee ne nag dogu na ci gàddaay gi ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa lu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu jokkoo ca dëkk boobu ñuy wax Yasrib def na ko ci ñaari ngir yu mag ya nga xam ne ñoo dëkk foofu ngir gu njëkk ga ña ngi koy wax al aws ba ca topp ñu nga tudd xasraj ngeen jàpp bu baax a baax a baax ñaari tur yooyu dana feeñ lu baree baree bari ci bu ñu agsee ci marhalatu madina euh, al marxalatul madaniya wala al marxalatu almadaniya al mubaraka marxala bi nga xam ne mooy marxala madinatu munawara al mubaraka nga xam ne li ëpp ci jaar-jaaram foofu la xewee euh, ñaari giir yooyu ñuy wax al aws ak xasraj ñu bari ci ñoom tuub nañ dugg lu jiitu yonente bi di ak si madinatu munawara waaye it amaan na yeneen giir yoo xam ne ay lañ yu mag yu fa nekk yoo xam ne incha taala danañ ñëw ci giir yooyu madinatu munawara bu njëkk yasrib la tuddoon bala may ñëw ci gàddaay gi ñu joxe tuuti ay maalumaat ay bind wala ay xam-xam yoo xam ne danañ ko mën a jariñ ci barab boobu yonent bi war a jëm si nag barab boobu yonent bi war a jëm si digganteem ak màkkatal mukarrama ñetti téeméeri kilomètre la ak juróom ñetti fukk ak juróom trois cent quatre-vingt-cinq kilomètres taqriban loolu mooy diggante Màkka ak Madina kon diggante bi diggante bu soree la boo xam ne ca jamono jooju nga xam ne wàllu transport dox la woon ak yéeg ci fas wala giléem loolu kon xam ngeen dana jël temps bu yàgg yàgg rawatina dem goo xam ne demoo ca jaar ca yoon nga xam ne moom lañ baaxoo jaare da ngaa fëtëxal jaar ci yoon woo xam ne nii ngir bëgg a yegg ba anam gam ko bëgg nga yegg fa. yasrib la tuddoon yasrib gi nag boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bari am na ci borom xam-xam yi ñu ne yasrib googu day aw tur la woo xam ne kenn ci sëti yonent yàlla noox yi. moom lañ koy dàkkante la ñu naan ko Yasrib ibnu Xaaniya nee nañ kooku moo dëkkoon ca barab boobu ñu tudde barab bi Yasrib am na ci borom xam-xam yi ñu wax loolu am na ci borom xam-xam yi ñu wax la neen waaye daan ala kulli xaalin baatu bi Yasrib biñ ko gëstoo ci téereb yàlla bi di alquran kasaalika wadd na ci téereb yàlla bi borom bi naan wa isqaalat taifatun minhum yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farjiu boo demee ci suratul ahzab lañ ko ci fekk kon baatu bi yasrib alxuraan xam na ko tayit ca dëgg-dëgg madinatu a googu la ci jublu woon bi yonent bi ñëwee madina nag woowee ne ko ay tur yu bari ca buñ agsee ci gàddaay gi danañ ci ñëw incha allahu taala moo tax sax lu bari ci borom xam-xam yi ne comme yonent bi changé na tur yi du ay teggin ñu di waxati naan yasrib am na ci borom xam-xam yi ulama al maliki yi ku ñaan al imaam Isa ibnu Dinaar bokk ci kàngam yi mazhabu Malik bi nee na yellut ñuy bindati wala ñuy waxati naan yasrib nañ koy woowee tur yi nga xam ne bi ku baax ki ak si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ko doon woowee euh, tur yooyu bokk na ci ñeenti tur yi ci gën a siiw nag mooy tayba tayba yonent bi moo ma wax ne haadihi tayba daal di joxoñ suufu su madinatu munawwara waxaat na it faneen foo xam ne ne haadihi taaba tayba mooy fu sell fu teey des na ko wax it xet gu neex kon bokk na ci turam yi tayba ak ak taaba bokk na ci turam yi daar ak daar ñi nga xam ne wax daarul hijra ak daar wala siina tabawa u daara wal imaana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim borom bi moom moo ko tuddee daar muy këru gàddaay gi dees na ko wooye it madinatu munawara gi nga xam ne yonent bi moom ne wax ne al madinatul munawara ni ma waxee woon ne baatub yasri wadd na ci alquran kasaalika it madina wadd ci alquran maa kaana li ahlil madinati wa man xawlahum min al aarabi an yataxallafu an rasulillahi ci sóoratu tawba baatu madina googu borom bi mu ngi ci jublu madinatul munawara madina googu yonent bi jëm lu bari li ngeen di dégg ci lislaam ca barab boobu la nekk danaa la ci jox juróom-ñaari mbir yu mag yoo xam ne ca dëkk boobu la nekk jabalu Uhud gi ngay dégg ca dëkk bu tedd boobu la nekk armée li baqiya nga xam ne li ëpp ci saxaaba yi fa lañ leen denc xulafaaul arbaa soxna yonent bi euh, suhadaa yi ñu baree bare bare bare bëri ñi ngay dégg ci armée lu baqiya googu lañ leen denc baqiya madinatu munawara la nekk masjidu masjidu quba muy jàkk ji njëkk a fondement ci lislaam madinatu munawara la nekk masjidu qiblatayni muy jàkk ji ñu wooye qiblatayni nga xam ne yonent bi jublu na nii jubluwaat nii mooy bu njëkk ba mu daa jublu baytul maqdis jublu na fa ndigal li ñëw fekk ko ca masjid boobu ne ko del jublu ca Kaaba ga mu jublu fa ñuy tudde jàkka ji jàkkay ñaari xibla yi madinatu munawara la nekk waaye it al masjidu nabawi al sharif al mubarak di jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy ñaareelu barab bi gën a tedd ci kaw suuf madinatu munawara googu la nekk waaye it barabam bu tedd boobu nga xam ne fa lañ ko denc dañ wax ne euh, pàkk boobu ñu ko denc am na ci borom xam-xam yi ñu ne moo gën sax aras am ñu ne moo gën mboolem pàkki kaw suufi am ci borom xam-xam yi sax lu mel ne euh, xaadi ayaat nee na sax moo gën aras muy foofu yonent bi tëdd diggante soosu noonu diggante soosu sax nee nañ as diggante la si àjjanatu mu naw àjjana gu tedd googu moom diggante boobu nekk ca madinatu munawara loolu ci ma masjidul jumaa madinatu munawara la nekk li tax ñu tudd ko masjidul jumaa mooy ba mu jug ba mu jugee xubaa moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam def fa ñeenti fan jóge fa ca bëccëgug ajjuma barab ba mu tolloon ñu sant ko muy julli ajjuma far ñu tuddee jàkka jooju masjidul jumaa ca madinatu munawwara la nekk kon mbokk yi lii juróom-ñaar la jàpp juróom-ñetti mbir yoo xam ne ca dëkk bu tedd boobu ñu bëgg a dugg nag di ca waxtaane yii yëpp ay seeni tur dana feeñ ak yeneen ak yeneen bi nga xamee ne am na ndigalul gàddaay moom yonente bi sallallahu alayhi wa gàddaay gi ñaari xaaj la am na lu ñu tuddee hijratul muslimin mooy gàddaayu jullit yi ca ci foofu laay waxtaane incha allahu taala am na gu ñu tuddee hijratul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mooy gàddaayu yonent bi sallallahu taala alayhi wa te danaa ci ñëw ci bind yee ñu jëm ci sëriñ bi it wax na ci lu bari ci jës bu danaa ñëw ci bayit yi ci sëñ bi wax ak gàddaay ganam demee nga xam ne diggante boobu moom dana laaj ab diggante bu yàgg yàgg yàgg ndax xew-xew yu rëy yi nga xam ne am na ca ba mu génnee këram ba mu jaaree ci xuntuma ba ni mu àggi madinatu munawwara teertu ba ak lam def loolu ay bindi bindi la waaye bala ñuy yegg ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ci la ko jiitu muy hijratul Mustafa ay hijratul muslimin ridwanullahi alayhim muy gàddaayu julli ki njëkk génn nag ci julli di gàddaay boo demee ci téere bi ñuy wax nuurul yaqin wax na ko mooy Abu Salama al Maxzumi ndeysaan euh, sang bu tedd bii moo njëkk a génn Abu Salama euh, nit la koo xam ne danaa ñëwaat ci moom Abu Salama ci ñi njëkk dugg ci lislaam ci la bokk ca jamonoy daarul arqam ibn abdul arqam borom xam-xam wàññi sax ñi dugg nee nañ fukki nit dong ñoo ko jiitu ci lislaam Abu Salama gàddaay na ca gàddaayu ko xabasaka gàddaay na ci gàddaay yu bari Abu mi moo njëkk a génn di koo xam ne dund na ay situation yu méttee métti aw turam di Abdullahi ibnu Abdul Asad ibnu Hilal al Marzumi Abu Salama mi Barra bintu Abdul Muttalib mooy yaayam bàjjanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ko moo ko Abdullahi ñoo bokk Abdul Muttalib kon kii am nag mbokkoo ak yonent bi sallallahu alayhi bokkoo ci bannu euh, Marzumi di xabila boobu moo njëkk a gàddaay ànd ak soxnaam ummu salama xam naa su ma nee ummu salama ñu bari dañ ah ummu salama kat ci soxna yonent bi la abu salama mii moo ko njëkkoon a yor bi ginnaaw gazwatu Uhud la faatu benn sariya bu mu demoon boo xam ne ay gaañu gaañu yu métti jëlee bi mu dellusee la faatu moom abu salama ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ummu su ma agsee ci bind bi nam ko denceeg anam baak at yaag nam demee yëpp incha allahu taala danañ ko wax waaye abu salama mii moo jëkk a génn gàddaay ànd ak ummu salama mi nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy soxnaam kon jullit yi nag dañ doon génne mooy bi ñu amee ndigal dañ doon génn xoof yatan maanaam dañ doon làqatu am na ñoo xam ne xaaju guddi lañ génn ñii waxtu woo xam ne baaxuwuñ ko génn lañ génn ñii bëccëg ci arab yi dañoo tàmm woon nopp lu bëccëg ci lañ génn am ci ñoo xam ne dañoo mel ne ku jëm barab sàngam jaare fa dem madinatu munawwara ay xeeti génn yu bari daal kenn ku ne daal def nga say pexe ba génn am na ci ñu ci daj ay métit yu métti kenn rek moo génn génn goo xam ne moom daa bàyyi ba ñëpp dajaloo ca penc ma mu laaj ba bañ ne ko ñëpp ñëw nañ kibaaru Quraysh ñëpp ñu ngi toog mu soog a génn xuus ca biir mbooloo ma présenté wu wax ni moom la diw doomi diw laaj leen ndax yéenay tere gàddaay ñu ne waaw mu ne moom mu ngi gàddaay kooku mooy kan kooku mooy naa Seydina Omar ibnul Xattaab ñaareelu xalifa bi nga xam ne moo toog xalifa ginnaaw Aboubacar Omar euh, ñaare boo gisee téere yi nett li gàddaay gi moom lañ ko beral ak gàddaayam ndax njàmbaarte gam ca wane ak euh, fulla jëm ca wane euh, ak nam ca wane ñi ma la wax ñëpp ku dut ñoom ku Omar mi ak ku mën a doon ci ñu gàddaay ñëpp nag da ngaa génn génn goo xam ne da ngaa laqatu ba ci alhabibul Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam nam génne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga xam ne mooy ñaareelu xaaju gàddaay gi yi waxtaane moom it génn la boo xam ne euh, nekkut ci anam boo xam ne nii bëggoon nañu yëg ko tey noonu mu ko defee noonu la ko yàlla digale moo tax mu réussir ca génn gam génnoon Seydina Omar bi muy génn wax naa la léegi ne dafa taamu waxtu woo xam ne nii ñëpp danañ toog ca pénc ma mu ànd ko njabootam yëpp nag ñëw ba ci pénc mi ne man la Omar ibnul Xataab ñu ne ko waaw yow la Omar yow moom ñëpp xam nañ la mi ngi yor jaaseem mi ngi waru fasam mi ngi ànd ak Abdoulaye ibn Omar mi ngi ànd ak soxnaam mi ngi ànd ak njabootam ñu yor seen i ak seen i saag ak seen lépp daal loo xam ne kuy tukki moom nga yor daal di wax ci kàddu gu xumb goo xam ne foo toll ci màkk di ko dégg mu ne nëbbatuwuma nag man du ma kuy nëbbatu yéen yéen a tere gàddaay yéen a tere ku génn màkkatal mu karrama ngir rawale diineem maa ngi xamal ñëpp ne maa ngi génn di gàddaay ca nëbb ko kenn maa ngi leen di xamal yéen ñii toog fii yéen ñëpp ma xam képp koo xam ne bëgg nga sa soxna muuru la teññi la nag ma kar ci xuntu yi nii ci yoonu sàngam lay jaar ca duma ko wàcc maa ngi xamal ne képp koo xam ne bëgg nga say doom doon ay jirim nag ma xar nag ma kar ci xuntu yi nii nga xam ne ci laay war a suubu wax ko ci kàddu gu xumb nag goo xam ne ba waxee ba noppi amut kenn ku ci teg baat ñoom ñëpp dañ ne tekk di xoolante mu daal di xuus mbooloo ma wax leen ay kàddu yu ñagas ànd ak waa këram génn wuti eh, madinatu munawara moom Seydina Omar ibnu Xataab njàmbaarte googu war na ne ko ci gàddaay kon ki njëkk a génn mooy Abu Salama mii nga xam ne wax naan ne la am na nag lu mu bokkaat ak yonent bi am na ci borom xam-xam ñu ne moom mbokk la ci yonent bi ci nàmp ci nàmp bokk na fuñ nàmpe maanaam bokk na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam aqu radaa loolu lañ koy wax ci arab muy bokk bokk na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuñ yaroo foo xam ne ñoom ñoo fa bokk nàmpe muy mbokkam ci wàllum nàmp loolu euh, moom Abou Salama mi ci turam dana feeñ lu baree baree baree bari moo njëkk a génn ak soxnaam ci nga xam ne moom la ñu wooyee Umu Salama Abou Salama mii wax naa la léegi ne la moom euh, moom Abou Salama euh, mooy borom këru Umu Salama léegi nag fañ jëm nag ñu di fa fekk ñaari giir giir gu njëkk gi di al aws gu ñaaree gi di al xasraj ñoom naka jëkk xamoon nañ lislaam naka jëkk it ñëw nañ def ay ndaje ak yonent bi waxtaan ak moom loolu bu ngeen demee ci bindu fukkeel ba ak ñeent jàpp bindu fukkeel ba ak ñett moom lañ doon tuddee bayaatul ba al ula ak asaniya loolu ñoom dañoo ñëw toog ak yonent bi jox ko ay garante garante yoo xam ne xamal nañ ko ne ñun boo dikkee euh, lii ngay dund fii ci màkkatal mukarrama doo ko dundi suñu dëkk danañ la dalal danañ la yaatal te it eh, danañ la aar danañ yor sa sécurité yow ak sa ak saw nit garanti yooyu nag bañ waxee yàlla moom danaa jox information yonent bi bu ñu waxee ba noppi lu cay dëgg day wax yonent bi lu ci dëgg moo ñoo ñu sax suñu borom tàgg na leen naan day ñoom nit ñu baax lañ ñoo xam ne yu yuhibbuuna man haajara ilayhim ñoom ñu bëgg gan lañ ñoom nit ñooñu aw nit lañ woo xam ne ay exemple lañ ci lislaam nit ñu bëgg gan lañ nit ñoo xam ne pare nañ pour yaatal képp koo xam ne yàlla la tax a jug dangay dox ci yoonu yàlla ñu yaatal la seeni béréb ca loolu danañ ci wane loo xam ne ci histoire taarixul basar doomu aadama musta def xeetu yaatal googu xeetu ngor googu xeetu mbaax googu amut ci histoire doomu aadama àgg ci mbaax mën a joxe sa soxna àgg ci mbaax mën a xaaj sa alal àgg ci mbaax mën a xaaj lépp loo xam ne da nga ko am ci lu baax te boo koy xaaj ki nga koy jox moom ngay jox moom ngay wax mu tànn ca la ko gënal mu jël ko moom la yàlla suñ borom tagg ci ñoom ci alxuraan naan wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñoom day aw nit lañ yow baax woo xam ne saa yu ñuy joxe dañuy xool la nga xam ne moom lañ gën a bëgg ci seen bakkan ñu joxe loola toog bàyyee seen bopp yàlla nit ñooñu lañ jëm muy al aws ak xasaraj waaye ñu ngi jëm ci nit ñoo xam ne euh, xeet wi nga xam ne ñooy ñi gën a ban ñi lislaam ci kaw suuf muy yahudi xeet wi nga xam ne yàlla nee nañ duñ seeni xarit duñ mbokk ay warkat lañ loolu yàlla suñu borom moo ko wax ci alquran muy yahud nga xam ne ñooy xeet yi nga xam ne ñooy ñi ëpp lu ñu rey ci yonent yi ñooy xeet yi nga xam ne ñooy ñi ëpp lu ñu rey ci ay gor ñoom yahud yi ci loolu démb la woon loolu feeñ na tey ci ndax loolu moom la seeni maam doxe woon ñoom euh, banu Israil di aw nit woo xam ne moo ne day euh, yàlla jiwu leen loolu xeetu teral gune yàlla defal na leen ko ndax li ëpp ci yonent yi ci seenu xeet lañ bàyyi ko waaye taxul nag mbon googu nga xam ne moom lañ bonoon ci taarix rey yonent yu bari ci ci taarix rey ay gor yu bari ci taarix doon aw nit woo xam ne nii kuñ mës a diggaaleel war nañ la te dana feeñ ci ci seen diggante yonent bi sallallahu alayhi muy ñetti giir yu mag muy bannu Qaynuqa bannu Nadir ak bannu euh, bannu Nadir ak bannu Qaynuqa euh, di ay giir yoo xam ne nii giir yu yaatu lañ ñu nekk ca dëkk boobu nga xam ne ci lañ war a waxtaane ñoom ñu nekk fa ñoom it bi yonent bi sallallahu alayhi def naa ñoom ay pak ay ay ay ay ay yoo xam ne ay wasaaiq ay wasiqa yoo xam ne def ay def na ko siñante ko ñoom waaye ni yàlla waxoon ne ñoom du ñu ay gor ñoom it kenn ku nekk ci giir yooyu ñu tudd da ngaa daal di war yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam war yoo xam ne na ko seen i maam doon doxee ñoom bannu Israil noonu lañ ko doxalee waaye yàlla dimbali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba madinatu munawara googu des ci loxoom moom madinatu munawara dëkk boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm dëkk bu wuuteeg màkk climat la dëkk la boo xam ne climat bu tàng la am saxaaba bi ñëwee sax ñu bari dañoo siburu siburu su méttee métti da leen dikkal ngir ñàkk gi ñàkk a xam climat bi dëgg la màkk tàng na waaye madinatu munawwara moo gën a tàng ndax wax naa la léegi ne la Uhud fa la nekk jabalu Uhud fa la nekk doon xeer woo xam ne daanaka foo toll ci biir dëkk bi da nga koy séen mu mel ne aw xeer wu mag woo xam ne dafa rabaloo foofu la nekk ci madinatu munawwara ñu ngi jëm ci dëkk boo xam ne ak màkka wuute nañ ay aada ndax màkka lañ xam ñoom dëkk commerce la dëkk business la dëkk la boo xam ne monde arabe bi yëpp wala euh, surtout jasiratul arab yi yëpp dañ fay dajaloo euh, dëkk la it boo xam ne nii dëkk bu siiw la boo xam ne marché bi gën a rëy ca gox boobu foofu la nekkoon dëkk la boo xam ne mboolem mulug yi nekkoon ci jamono ñoom ñëpp a xam dëkk la boo xam ne ñëpp fay ñëw ndax kaaba ga ñëpp fa doon ñëw it ngir xërëm yañ fa amoon dëkk la boo xam ne dëkk bu ñiin la boo xam ne xam nañ ña fa dëkk ak mbooloo yi fa dëkk waaye madina gi ñu jëm nag madina dëkk la boo xam ne moom it Euh, xañ na siiwut ci commerce waaye siiw na ci mbay siiw na ci tàndarma dëkk la boo xam ne dëkk bu meññ dëkk boo xam ne li ëpp ci li muy génn ci tàndarma ci gox boobu ca dëkk boobu la doon génne moom madinatu wara ñu koy wax yesrib dëkk boobu mu jëm nag ah li muy doy waar doy waar ca jamono jooju nga xam ne moo jiitu woon lislaam euh, moom dëkk boobu noonu bi yonent bi dikkee setal na ko laabal na ko euh, alxuraan wàcc na fa dëgg la boo dee xool ci te loolu jullit bu ne war na koo xam ci tënk euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam 63 ans la dund mooy juróom-benn fukki at ak ñett fukki at yeeg ñaar yëpp mooy marxalatu makkiya tey boo dee xool alquranu karim ñaari marxala rek nga fi fekk sóora makkiya wala madaniya euh, màkka la ëpp boo doon xool ci ay fan yu weer walay heure l'islam ca màkka la ëpp ndax bi mu amee 40 ans lañ ko yónni mu def màkk 12 ans Madinatu Munawara 11 ans la fa def boo boolee lépp muy 63 ans waaye nag li ëpp ci lislaam di xare yëpp ak li ëpp ci alquranul karim ak li ëpp ci ahdaas yi nga xam ne xew na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola Madinatu Munawara la bu ngeen xoolee jamono yi màkk jamono ji métti rek lañ ñoon waxtaane waxuñu dara lu neex ci ray ci métit ci coono ci lañ nekk waaye nag dëgg-dëgg lislaam ji dëgg-dëgg dëgër laayu lislaam ji am na tur yu bari yoo xam ne nii déggagu leen seeni tur ñooñu ca Madina lañuy feeñ xare yi déggeegu leen ci benn xare te xare yi xam naa nit ñaa ngi koy xaar euh, gazatu badrin gazatu uhud gazatu xonayni gazatu tabuk muy gazawaat yooyu yëpp nga xam ne toll na ci ñaar fukki xare ak juróom yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon naag ñoom yor ngànnaay di euh, di xeex ak yeneen saraayaa yoo xam ne saxaaba yi la yebaloon nga xam ne àgg na ci fanweer ak lu teg yooyu yëpp ca madinatu munawwara la xewoon mu doon dëkk boo xam ne nii manees naa wax ne ñu ëpp ci ummahatul muminina yi ndax dégg ngeen soxna Xadija wax naa leen ay jaar-jaaram ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dence woon waaye li desaat ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ci mel ne sayyidatuna Aïcha naa ñu bari ñi ngi xaar moom it aw turam wadd moom it su ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaa wax ni ko yonent bi dence woon ak moom mooy kan ci yan circonstance la ko fekke woon ak liggéeyam ca Madinatu Munawwara ak li desaat ci ummahatul muminina yu baax yëpp radiyallahu taala anhunna yàlla na yàlla loolu leen gërëm dugg nañ nag ci benn introduction boo xam ne leeral nañ fa yonent bi jëm leeral nañ asbaa bi wax nañ ñi njëkk a génn génnanoowuñ group dem dañ doon génnanoo par kenn wax naa la kenn rek moo ci déclaré ak génnam muy Seydina Omar ci des ñëpp dañoo nëbbut léegi nag mu des nag li ñuy xaar dëgg dëgg dëgg nag muy gàj gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy hijratu Mustafa nag sallallahu taala alayhi wa sallam doon loo xam ne nii buñ ko waxtaanee ku dib jullit rek dana dana am ay bind yoo ci mën a jëlee waaye cofeel gi nga xam ne yàlla def na ko nit ñi am ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa kër Cheikhul Khadim dana am lu mu def ci ñoom dana am lu mu yëngal seen xol ci daw yaram gaag ni ko sëriñ bi nettalee ci jës bu incha allahu taala loolu ci bindu fukkeel bi ak ak ñaar ci lay ci lay jàll incha allahu taala ñu jox mbokk yëpp ñu bàyyi xel bind yooyu di sant waa MKTV ci eh, njiital si Abdou Khadir Bousso bi nga xam ne mooy saytu jataay bii nii di ko ànd ak mbokk yi ñoo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa